Euh, inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mbokk internet yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ñuy bàyyi xel rek saa su nekk dañuy daal di dikkaat rek ci ab xibaar boo xam ne rek mën nañu aw tiis la ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di askanu sunu gaal moom mi nag ñu ràññee lool ci milieu bi di Kouthia gannaaw fan yi ñu génn yëpp rek ñu dégg li nga xam ne moom moo di ab feebaram ba ñu baree baree bari sax doon tiitre ay titre yoo xam ne rek yu doy waar doy waar la wante kat niki tey di ab xibaar boo xam ne rek daal nañ koy jota jotandoo ñu nemmi ko ko nag nag kene moom mi di Kouthia Show ñu mën ko loolu ràññee ko fii ci réew mii di Sénégal daal dinay dikk rek ni koy tey ñu daal di ñuy tàggee ki nga xam ne moom moo di waajuramu bu jigéen moom mi di Kouthia Show nag daal di koy ñàkk ni ki ci ay xibaar yoo xam ne rek jot nañu ko bu ñu sukkandikoo nag ci moom mi di Kouthia Show gannaaw sax fan yi ñu génn rek feebar bu métti metti boo xam ne tëraloon na ko ba ñu bare bari doon génn di ci wax wante kat bi ñu toll nii amandi ba tax rek moom mi di Kouthia ak ñi nga xam ne rek ñoom lu bokkal lépp lu dellu ci wàllu milier bi rek ña ngay daal di naqarlu bu baax a baax ak timit di gëm ne ci yàlla la jóge te tamit ci yàlla la ñuy delluwaat kennekat seen waajur bu jigéen bi dem na te duutul dellu siwaat muy yaay ci ki nga xam ne rek moom moo di Kouthia Show loole nekkoon li nga xam ne rek moo gënoon fees ñu kon pour daal di leen koy jàllale di leen di jaajëfal bu baax a baax ci topp gi